حمدا لرايا بن الخير الغافر ذنب الموجب لكل دار بالمنيب لوجه أكبر الله أكبر لا bu ñuy wax jullit dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Serigne Touba noonu yi la mel ci julli lu nekk lu mu mën a nekk. ba noddu jot ba noddu jot. bu déggee noddu gi bu déggee loola lu mu mën a doon. mu mën te moom waxtu wu nekk ci la gën lay ne. waxtu wu nekk ci la gën lay ne. gën a baax la gën a baax. waaye da ko fay bàyyi. waaye da ko fay bàyyi. ne ko fa ñukk. ànd ak fitna ànd ak fitna. muy naaj muy naaj. muy taw muy liw. du ko xàmmee day day dem rek ci jàkka ja fonk julli lool ba ñëpp xam ko ci fi muy jullee sax waxtu wu ne mbubbum boppam sikkis boppam njàppum boppam fukki at ak juróom yi mu nekk njaarim yëpp ba fa muy jullee sax suuf si rek lay julli du falal dara bu tawee sax da day ñëw dégg ay loxoom da ngay dégg ay loxoom ni muy tappee ci ndox mi ndax du yëge ci dara lu dul boromam diggam ak suuf si du fi doxale dara foofu la tegan julli kon nag ku ko tabaxal jàkk ci yoonu murit dakk nga bëggug sëñ bi nga bëggug sëñ bi waaye nag jam nga ba nga ko dàkkee itam nee na jërëjëf mu ngi lay sant bu baax di feddali wala réew yi waxtu wu fi mas a ñëw rek nee lu mel nii tax kon nag nee sant nañ bu baax jërëjëf di ndokkeel sa bokk yëpp sa jëf ji ak sa kilifa yëpp ak sa sëriñ sëpp ak sa soppi yëpp ndax lii moom ndam la ndamul yoonu murit la ndamul lislaam la yàlla na yàgg lool jërëjëf Mbacke jërëjëf